الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا واخ جف دنا تونغوم واخ واي واخ دي تونغوم جف تي جف دي ميغي ngir jàppale mbokk yi nga xam ne ni ñoo dëkk ci gox bii di Guy Mbind ak ñi nga xam ne nii ñooy waa rabita bi ñi nga xam ne nii ñoom ñoo teetewa te alxuraan bi ak jumaatu Tuubaa ji kon loolu Serigne Moustapha nee na moom du la ci sant ndax defaloo ko ko ki nga xam ne ni moo fi nekk di Seexul Xadiim di Serigne Mountakha moom nga ko defal ndax jamono danay egg foo xam ne ni lépp lu ñuy di def mu jëm ci ndimbal ka fa toog toog nga xam ne ni moom moo nekk ci kilifa ci kanamu jaam ñëpp moom nga ko defal kon nak li nga def serigne muntaxa nga ko defal sa mam serigne baara nga ko defal sa mam cheikhul xadim nga ko defal li tax nga def ko nag it ngir dimbali nit sun borom mi nga xamni mo am fay yalla na la ci fay lu kawé sunu ci sun jor ci daraja cheikhul khadim di ñaan sëriñ Moussa nee mi ngi ñaan lii nga xamni ni moy mbass mi nga xamni ne sunu borom tek nanu ko nan ko tego xamni mom mo nu ko sañ tek teg te buñ ko nangoon nak ñu bolé ko ak ak ñaan ak fagaru ndax lu mbir reey reey lu mu dis dis ñaan mën na koo fagarot fagaroot biñ koy wax ngir bañ jàngoro dal la kon nag nanu boole fagaru ak ñaan ndax ñaan ñaar yooyu rek la ñu am. di am mbégte na ci tew fii ci wetu Serigne Bass ci jëf jure ji nga xam ne jëfati na ko ndax bëkk démb def na ko kon ñu fas yéene jël kaddu te kaddu googu nañ ko jël ci tuddu mboolem yoonu mur yëpp muy Cheikh Mouhamadou Mountakha ak si ahmad Makhtar nga xam tudd na ko ak mboolem mbokk yëpp ndax li mu def bokk yëpp la ko defal ndax bu suñ muntaxaa waxee ne kat kenn ku nekk loo man ci dimbali ka nga tane na nga ko def rawatina nga def ko ci daara yi moom mu jóg def lii jagleel ko ñi nga xam ne ñoo ne ci daara kaamil yi nga xam ne ñoo ne ci juma ji jagleel ko ñi nga xam ne ñooy noddkat ya fa nekk jagleel ko ñi nga xam ne bi itam ñooy daara yi alxuraan ak nag mboolem dëkkandoom yi nga xam ne ñoo nekk yëpp te ñëpp di njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ci mu ci wàllu deret mu ci wàllu pas-pas kon loolu dafay jëf joo xam ne jëf ju jëf ju rëy la joo xam ne sëñ Bass na nga xam ne ñun ñëpp nga ko defal kon jëfe nga ndigal li nga xamante ni mooy li nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha digle te bir nañu ne dañ ko daje ak sa ngërëmal maam ndax rawatina fi nga ko def kon ñu ngi lay sant di la gërëm dafa mel ne kon sa jëf ji dafa wuyu ci jëf yooyu yëpp ndax dugal na daara yi dugal na jumaa ji jàngkati alxuraan ya fa nekk ak noddukat ya waaye dugal nay dëkkandoo yi mu mel ne kon dafa maasale ni sëriñ bi defoon rek ci nga topp kon alhamdulilah yàlla na suñ borom yéegal jëf ji ci jëfi sëriñ ba ndax xam nañ ne moom ay jëfam lu ñu nangu la am na loo xam ne bu ko nit defee des na ko sant waaye la ëpp solo mooy ñaanal ko ndax koo xam ne loo am lislaam am ca wàll ku lislaam yitteel daf la cay ñaanal kon ñu ngi ñaan suñu borom mu gën leen a taxaw gën leen a dimbale ndax kon loola dana doon yokkuteeg lislaam di sant bu baax ak a ñaan jëf ji suñu borom nangu ko te yéegal ko ca jëfi mag ña di toftal seen jëf ji ci jëfi Cheikh mu Mountakha Mbacké mi nga xam ne ba jàngooru ji nuyoo rek mooy ki njëkk jël alalam tabbal ko ci ak i ñaanam waaye yëmu ca loolu mu dugle itam bokki jullit yëpp rawatina taalibe yi kenn ku nekk la man mu dimbalee ko mbokkum jullitam bi pil bi comité bi déggee loolu nag ci euh, Serigne Bassirou Mbacké la coordinateur jokko ak le président ñu am seen xalaat bu rafet bi ngir toftal seen jëf ji ci jëfi Cheikh mun taxa moomu ak jëfe ndigal li nga xam ne Serigne Mountakha jox na ko ci ñu dimbalante ñu jël seen ndimbal li di ko dimbalee bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi waaye rawatina lu jëm ci biir Touba Mbacké gi tàmbalee ko ci jumaa Cheikhul Khadim ge ca ña nga xam ne ñooy féetoo njàngum alxuraan ma ak mboolem daara yi nga xam ne nekk nañ ci biir Touba gépp ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom ñëpp itam aajowoo ñoo ndimbal yi sëriñ Basiir Mbacké sëriñ Xaari Awba coordinateur général ñi ngi digle bokki jullit yëpp bokki taalibe yëpp ci jëfë ndigal yi nga xamné docteur yi digle nañ ko ca moy fagariku fagaru ak fagani ndax dañuy wax ne fagaru mo gën faju motax serigne sëriñ Bass tànn ñooñu nga xam ñoo jang kamil bi di yor nit ñi jang ñaar fukki nit lañ ak juroom ñet waye nak mom ci yaatal gi mu dégg yaatal bi taxna nit ñi jang di taxaw dara ñeleen bëgg ñeleen di jappalé da nga leen ci bolé motax mom bimu ñaar fukki nit ak juroom ñet ñoo jang kamil bi Amnu kenn ku fété ci ñoom nga xam mo leen doxal seen yitté ba tax ñu mëna jang jang am na sëfar boo xam ne moo leen di yóbbu ñuy dem ak a ñëw sëriñ Bass boole ko ci muy 30 personnes yoo xam ne kenn ku ci nekk ci jumaa ji jox na la saakob ceeb ak bidon diwlit bu 5 litres jox la 3 kilos café 15 kilos suukar loolu sëriñ Bass moo ko def ngir dimbalee ko noonu ci mbas mi lii nag laa xam ci dimbal nit boo ko dee wax toogal sa kër da nga koy wax lu da nga koy jox lu mu toogee këram ba mu mën a moytu jàngoro yi li sëriñ Bass jof ñi ngi koy bàyyiloo xel képp koo xamante ne mën nga ko lu mu néew néew nga dimbale ko nit ba tax ki nga xam ne bu xëyut bu xëyut tey bu xëyut bu subaa doo añ du reer su boobaa mu mën këram mën a daw jàngoro ji bàyyiloo xel ne ñooñu nekk ci jumaay Tuubaa ji daara kaamil ñu mën a bàyyi lañ ndax muy taw muy naaj lu waxtu wu nekk suba danañ ñëw jàng si kaamil tisbaar danañ ñëw jàng si kaamil tàkkusaan danañ ñëw jàng si ñaari kaamil te ba ko Sëriñ Tuubaa sosee ci 1902 ak léegi fofu seigne touba sax kalau jël kon lo rek man na safara jangori ñu wax yépp kon nak képp ko xamni yaangi dégg lo man ci jappalé ñoño ba tax lañuy def ni gën ko mëna def ci xel mu dal ñi nga def ni serigne bass mi def kenn taxul nga jëf ko nak luddu yalla sun borom tabaaraku ta'ala ak cheikh ahmed ben bakhadim rasul ak samaam ji tedd cheikh mohammed lamin li nak cheikh mohammed lamin ñaanon nako boromam neena ko won ma ngi lay ñaan sama njabot gi ñu seetlu loolu mucc ayib mucc ayib nag mooy nekk si ndigali suñu borom yi di dimbali doomu aadama yi nee na ko woon sama njaboot gi saa bu ñu xëyee nañu taxaw ci yoonu siraatul mustaqim jëm sécurité di te mooy jànnatu firdaws mbàkki yaa ngi ci yoon wooye nee na ko woon sama njaboot gi saa bu ñu xëyee nañu fas yéene sës rek ca góor yàlla yi te mooy awlu asmiya yaa ngi ci yoon woowee wa an takunu sababal jannati wa sababal firdawsi wal minnaat mbak yaa ngi ci loolu wa an takunu sababal xufraani mahilbu saaraati madde lesmaani mbak yaa ngi ci loolu wa yi fi alihi yaa rabbi fi maali yaa ngi foofu ndax sëriñ Bachir bi mu yëkkatee jëf ji am solo ji daf koo jaarale fa nga xam ne noonu rek la ko alxuraan digle mooy nga tàmbalee ci ñi la jege jàll ci mboola ña ca des te loolu wax dëgg yàlla dëppoog alxuraanul karim la kon bu fekkee dafa tàmbalee ci dëkkandoo yi waaye dëkkandooy mu tànnaan ña nga xam ne yàlla tudd na leen ñu jàngalekat alxuraan yi sëñ xaadim yi mu tànn ko ci ne seetal ma daara yi fi nekk mu seetal ko daara yoo xam ne jege na fanweeri daara mbaa mu ëpp ko ñëpp mu fas yéene taxaw dimbali leen te jëfe ko ci kaw ndigal li nga xam ne rek maamam ca la nekkoon mooy taxaw jàngkat yi ak jàngalekat yi waaye itam Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg te gën a wér def ko ba noppi jëf ko ba noppi woote ca kon nag looloo tax sëñ xaadim yi di yëkkati kàddu di seeral mbokk daara borom daara alxuraan yi ci guy ñoo xam ne sëñ Bassirou mi ak mbooloo mi mu àndal mooy comité pilotage bi taxaw journée culturelle Cheikh Amadou Lamine Bara seen jëf day rafet na lool jëm ci yéen jàngalekat alxuraan yi kon ñoom ñu soññ nañ leen ci liggéey bi ngeen gën koo jàppate gën koo fonk ndax bu ngeen ci nekkoon te kenn taxawu leen ngeen wan ko ginnaaw te bi ci dëkk bi kon nekkee ñoom ñu taxawu leen na ngeen xam ne am ngeen ñu leen féete fépp kon nag faru leen ci liggéey bi waaye nag nañ ànd di leen bokk di ñaanal saa bu ñu jàngee alxuraan saa bu ay salaat saa bu ñu defee ay werd nan ñaanal sëñ Basiir ak ñi mu àndal ak mboolem ñi mel ni ñoom ñu yàgg am kattan ak wér ba yàggoonoo taxaw ndax li ñu nekk kat buñ ñu na bu ñu feete fi ñu féete ñu man ko ñoo ñoom ñoo bokk benn wàccuwaay ndax suñu borom ba mu taggee ñay jàng ka jàngale it daa tagg ña di taxaw ba nga xam ne nañ man loolee kon sëñ Basiiru mbokk yaa ngi lay sant bu baax di ñaan yàlla mu nangu liggéey bi te fay lañ lu koy njort defe naa aay yi ñu tàmbalee woon rek fay ga ca nekk doy na sëkk ndax ñi fekk nit ñi xiif sonn yittewoo nga taxawu leen te yàlla rek tax ñooñu day suñu borom tabaaraka wa taala dig na leen aljanna ak xéewal yi cay topp yàlla nan dajeek moom